dootul dootul nekk sutura ci sa ci ci sa morom ndax eh, amul benn eh, am diggante bi daal kenn kenn baaree ko quoi maanaam eh, boo duggee yéen yow Birame bu ngeen duggoon ngeen di voté tey da ngay xam kan la Birame voté yow kan kan nga voté loolu tam mu nekk benn xëy na benn kii boo xam ne xëy na du yàq ngeen ci ay joyante fekk ci kanam tuuti ndax ñu ngi leen di dégg ne woo ay woo sous-préfet ñu xam ñoom ñoo jiite centre bi pour mu ñu mën ci indi ay saafara en tout cas daal bu weesoo li nga xamante ne si ne daal mooy euh, quelques manquements yooyu li ñu daal lépp yem na te fi ni ne nii dañuy xaar rek euh, huit heures jot à dix de huit heures donc rek ñu mën a démarrer li nga xamante ne si moom mooy euh, mooy mooy scrutin merci beaucoup euh, Galaye Sylla fële ca euh, Louga dinañ dellu si si kanam xam naa à huit heures fekk na euh, dispositif bi yëpp yemb ba tax na nit ñi xëy na dinañ ñëw ñoom itam voté en masse à Birahim on s'attend à ce qu'il y ait un taux de participation assez quand même conséquent comme on l'a dit tout à l'heure il y a des problèmes de carte d'électeur obtention bi c'est quand même assez impossible on va dire et également est-ce que véritablement ñi nga xamante ni yaakaar nañ dinañ voté dinañ génn dem voté ji Euh, jàpp nañu ni eh, dañ gën dem voté mais gis nga euh, code électoral euh, tënku na ba nga xamee ni problème bu amee. Hmm. ci biir code électoral am na lu ñuy woowee solution donc ci lu jëm par exemple ci lu soxal wàllug. Euh, urne bu teewugul wala euh, li nga xam ne moom mooy matériel électoral boo xamee ne <coughs> c'est pas encore euh, mis en place mm-hmm. am na yoon boo xamee ni dañ ciy jaar ndax maa ngi koy wax sànq mm-hmm. bu jaree woo sous-préfet wala autorité administrative bi nga xam ne moom moom la ñu dénk boobu lay arrondissement wala département muy gouverneur muy préfet muy sous-préfet ki nga xam ne moom mooy euh, président wu euh, euh, centre de vote mhm. bi nga xam ne moom mooy saytu centre de vote bi la fa am nañ ko war a daxaleeg yooyu mhm. am na jokkoo boo xam ne régulièrement da koy jokkoo mu am mhm. ligne directu ki nga xam ne moom mooy autorité administrative bi pour ne attention y a tel problème à tel endroit Sénat nga xam ne moom mooy commission électorale national autonome ñoom it dañu am seeni représentant partout mhm. ci bureau de vote yi ci mhm. centre de vote yi euh, am koo xam ne dafay teew pour bu amee justement ay manquement mu euh, répertorier ko wax ko ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi pour que ñu mën a jël seeni disposition Euh, à à un moment te euh, mhm. ne daal ni war nañu ko lijjanti laataa lool gis nga même bu ñuy dem ci par exemple l'heure de l'ouverture des bureaux de vote qui est normalement fixée à huit heures mm -hmm. des retards ñi nga xam ne ñoom ñooy et les plénipotentiaires des euh, coalitions ou partis politiques mm-hmm. le président du bureau de vote euh, ay assesseur am ak ki nga xam ne ñoom ñooy waa Sénat mën nañu dañ koy wax ak euh, président au bureau de vote bi ak centre de vote bi ne ko woo préfet waa sous-préfet waa gouverneur ne ko bërëb sàngam mm-hmm. ma nekk ci Parcelles Assainies war mënuñoo commencer heure sàngam donc dañu koy bind ci benn euh, kayit boo xam dañuy fësal ni mënuñu woon tàmbali huit parce que y a eu tel ou tel ou tel ñu ngi commencé à neuf heures comme neuf la ñu commencé euh, autorité administrative bi répertorier ko xamal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy les organisateurs de l'élection muy le ministère l'intérieur ñu ne leen donc am na lu ñuy génne xeetu arrêté lay doon pour xam ne ni centre de vote nangam neuf heures la commencé kon du ñu def terminé dix huit heures yokkal nañ leen. mais est-ce que loolu du doon éventuelle prolongation de euh, de vote peut-être qu'on euh, bu ñu euh, jëlee ki nga xam ne moo ñu teewal foofu ca Guédiawaye mu di Mamadou Fofana Mamadou Fofana bu dee yaa ngi ñuy dégg ñu ngi lay dalal sur Zik FM ak Sen TV. Mamadou Fofana. oui Yacine. def yaa en direct. oui maa ngi leen nuyoo di di la ziar di ziar Birahim Dia di Touré di ziar euh, nga xam ne ñëpp ñu ngi déglu kon ci KFM euh, ak Sen TV euh, di leen wax na ne kon maa ngi école xalima Diakhaté Kala A donc di école bi nga xam ne mi ngi nekkee ci commune d' arrondissement bu kon Wakhinane Nimzatt fii nag mën nañu wax ne ne fu mu nekk nii daanaka yëf yi tàmbaleegul noonu xam naa nag dañuy xaar huit heures daal di jot bu ko defee kon ñu doog tàmbali li nga xam ne moo jëm ci vote bi géejawaay nag Yacine ku ko wax nekk euh, ville boo xam ne bu am enjeu ndaxte nag xam nga suñu waa ji moom Ahmed dara fii la nekk Malick Gakou aussi fii la nekk Aliou Sall ak ñeneen i kàngam yoo xam te nii nag donc fii nañ nekk ñoom ñëpp waaye mën nañu wax ne de daal yëf yi tàmbaleegul jamono jii ma bàyyi leen ngeen dem xool yeneen localité yi. merci beaucoup foofa euh, Fofana ñu ngi lay jaajëfal xam naa dinañ euh, joxante dig daje ci kanam léegi rek du yàgg euh, côté huit heures foofu ca waaye comme ni nga ko waxee mu di gox ba nga xamante ni foofu la El Hadji Ahmed Aidara di jonganteeg ñoom Malick Gakou ñoom seen bëri nañu sax ak Aliou Sall donc Birahim ñi ngi wax sànq ci éventuelle peut-être prolongation ou fermeture de heure de vote donc tey jii bu amee peut-être quelques lacunes yu ñu noté ci yenn gox yi dina daal di indi problème, euh, pas forcément, euh, parce que le, le problème, c'est pas plus euh, l'heure de l'ouverture des bureaux de vote, parce que mënoo ubbi te lépp matul suñu waxee lépp nag dafa am lu ñu wooyee le matériel électoral. Mhm. matériel électoral bi. fu mel ni Parcelles Assainies sànq voilà donc li ko composé euh, muy urne yi muy li nga xam ne moom mooy bulletin de vote yi muy enveloppe yi muy. Euh, mhm. li nga xam ne moom mooy mbañ gàcce yi ci boppam muy isoloir bi euh, loolu yëpp pourtant le ministère de l'intérieur def na benn tournée un peu pour voir comment ça se passe mais jàpp nañu ci bërëb yu ëpp en tout cas que le matériel électoral. Mhm. au moins l'avant veille ou la veille. Mhm. ndax am na autorité administrative boo xam ne moom dañuy dénk lépp te euh, am na démb maa ngi romb fu euh, ci yenn ci ay écoles yoo xam ne ay centre de vote la mais foofu déjà. Euh, la police était déjà sur place parce que dafa am ay détachement yoo xam ne dañ ko teg mhm. ci centre de vote yëpp muy police wala gendarmerie selon euh, euh, la compétence territoriale fa ñu nekk ak la nga xam ne moom moo fa nekk parce que xam mhm. nañu ni police par exemple lu jëm ci ay commune ak yooyu moom moo ko yore compétence am la waaye gendarmerie tamit am compétence boo xam ne moom mooy xaw a gën a yaatu donte il y a ce qu'on appelle aujourd'hui benn dajaloo boo xam ne dañ leen ko boole muy police ak gendarmerie muy lu ñu wooye ay brigade mais mhm. ñooñu euh, nekkoon déjà ci wala nekk déjà depuis euh, quelques jours ci yenn euh, centre de vote yi mhm. c'est également pour sécuriser matériel électoral bi nga xam dina ñëw mhm. mais ubbi matériel électoral bi président wu centre de vote bi moom la ñu ko dénk ne ko daal yow yaa yore mbir mi mu am nag ñu ñu ñu ñu toftal ci moom muy Sénat muy assesseur am muy plénipotentiaire u parti yi wala coalition yi ñooñu dañuy saytu ne ndegam matériel bi c'est au complet ndax la ci war a nekk yëpp mu ngi ci ndax urne yi mu ngi fi ndax isoloir yi installé nañ ko fu am manquement nag dañ koy mhm. répertorier autorité euh, administrative bi pour mu mhm. rectifier ko très rapidement donc moment bi ñu nekk ni nga xam ne huit heures jotagul mhm. euh, yenn ci bërëb yi je pense que ils vont rapidement euh, euh, régler la situation mais le cas contraire ils seront obligés peut-être bañ a démarrer à l'heure mais loolu même bu ñu koy def dafa am lu ci code électoral bi wax may mhm. mënoo boo démarré wul à l'heure heure ba ngay démarré foog autorités yi ci war a concerné wala informé ñëpp xam ko mhm. ñëpp d'accord ci ba ñu puus ko ci waxtu bi ko war a démarrer mais bu ñuy tëj tamit dañ ci yokk waxtu bi nga manqué euh, ñu am yaakaar ni fële ca Thiès euh, dispositif euh, matériel yi on va dire électoral yi daal dina yemb dañ ci ànd ak Pierre Claver Pouy moom moo ñu teewal foofu ca Thiès Pierre ñu ngi lay dalal maa ngi leen fay yaatu. na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. mbaa lépp yemb na foofu nga nekk. waaw euh, yaatu ñu ngi nga xamante ne mooy centre Modakan mooy centre daanaka bi gën a mag ci Thiès ak ses euh, dix neuf de vote Euh, nit ñi nag ñëw nañ mais opération de vote yi commencé gu ñu ngi ci installation yi di taf numéro bureau yi euh, takk der yi tamit di xool ci bunt bi dugg bi ñoom sax li ñuy bañ ak jamono ji foog ñu wax ko contexte coronavirus mooy daal nit ñi ci dajaloo moo tax daal ñuy seet bu baax a baax kan moo war a dugg ak warul dugg ku yor sa carte ak fan nga war a voté ak mandataire yi nga xamante ne ñoom la coalition wala euh, parti yëpp pour ñu voté centre bi nag daanaka ak bu Medina Fall ñoo gën a rëy Thiès ku ci gagné daal ku gagné centre bi daanaka mën na jël avance yu bëri ci ci Euh, candidat bi Thiès nag xam nga euh, particularité mooy da nga euh, ñu dëkk ci commune Thiès est ouest ak nord dañuy voté ñetti yoon dañuy voté seen commune d' abord voté pour ville bi voté it pour département bi moo ñu nekk xam commune Thiès est Thiès ouest ak Thiès nord Thiès nag enjeu bi waxoon naa ko ci biir semaine bi enjeu bi mooy ginnaaw éclatement maanaam tasaaroo gi am ci Benno Bokk Yaakaar ndax dañuy am reconfiguration politique bi fii ci Thiès ndaxte loolu euh, man ñëpp ñu ngi koy njort ndax ñi nga xamante ne ñoo bokk ci APR ñu ci bëri dem nañ ci ay yeneen liste concurrente jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ay candidat lañu ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñiy voté nag ci Thiès soo ko xayma ci département bi yëpp toll nañ ci trois cent soixante treize mille six cent seize maanaam lu ëpp ñetti téeméeri junni euh, ci ci xayma xaaj bi rek daanaka ci ville bi euh, la ñuy voté euh, lieu de vote yi nag sol nañ ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn euh, bureau de vote yi ci département bi yëpp daanaka ñu ngi ci toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci sept cent quatre-vingt-treize bureau de vote liste yi nag juróom fukk ak juróom ñeent la ci commune yi ñetti communes yi Thiès